biir ngir mën a am doole jàkkaarloo ak Macky Sall yéenekaay gi moom Assane Samb daal di wax ne réew mi bu Idrissa Seck dem nañu fekki Macky Sall parti démocratique sénégalais seeni mbir dara leeru ci ndax Karim Wade maga Katara kon nag jamono ci ñii nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ku si mel ni Khalifa Ababacar Sall di Ousmane Sonko di ma Pape Diop di Mamadou Diop Decroix Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall ñii ñëpp ak ñeneen mën nañoo boole seen loxo joxante doole ngir nag mën a jàmmarloo ak gouvernement bi moom Assane Samb ne Khalifa Sall am na expérience Khalifa Sall am na poids Khalifa Sall crédible na kon war naa mën a boole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi opposition bi nag bu ñu xaar benn yoon ci conseil constitutionnel ngir nag mu gàntal candidature président Macky Sall ndax Macky Sall ak nii nga xam ne moom lay doxee maanaam ñetteelu mandat la bëgg ci réewum Sénégal yéen kaay gii di Le Quotidien xëy na waax ci ville yi nga xam ne dañoo wax ne dañu ko fee bëgg supprimer lu si mel ni ville bu Ndakaar bu Pikine bu Guédiawaye bu Rufisque ba sa Thiès nag ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñoom nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg fas yéene nañ see guerre ak Macky Sall yéen a kaay gii di Vox Populi lii quotidien réew mi quotidien le soleil sud du quotidien xëy ci industrie extractive yii nga xamante ni ci réewum Sénégal maanaam daan nañuy versé ci trésor lu toll ci cent soixante et un milliards ci at mi rapport ITIE bi moo ko wane yéen a kaay réew mi quotidien ñu xëy fekk fa waa Y'en a marre ñoom nag nee nañu Macky Sall du ñu ko bàyyi muy sampaan ndëndëm ci bopp réewum Sénégal ba fii am am ñetteelu mandat wala nag Macky Sall ci ay néew lay jaar maanaam ci ay cadavre ndax nag am na loo duñu nangu tey duñu ko nangu ëllëg am na loo xam ne muy ñu ko woon Abdoulaye Wade lan moo tax ñu koy may Macky Sall Macky Sall dina dem dina partir 2024 moom Macky nag moom mooy choisir mooy xool ba xam dafay génn ci grande porte bi wala dafay jaar ci kaayu néew ngir génn réew mi loole waa yaana mar ñoo ko xamle ñoom nag nee nañu daal jamono ji na ndaw ñëpp génn takko yéen a kaay gi di direct news xëy na ci centre de traitement yi structure sanitaire yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee ay arriérés de yu bare bari la leen Abdoulaye Diouf Sarr amee la yéen a gi di Dakar Times Davis nee na vaccin bii nga xamante ni moom la ñuy wax ne mooy faj coronavirus tiital na Afrique bëri na ñoo xamante ni amuñu confiance ci vaccin bi ñi nga xam ne ñooy industrie pharmaceutique yi sax ñoom dañu leen a soupçonné yéen gi di Dakar Times nee na africain yi ñeme bi yéen a gi di réew mi ñu xëy fekk fa waa COSYDEP ñoom nag ñoo ngi interpellé état bu Sénégal ngir mu gën a wagar li nga xam ne mooy école bi ak woppi coronavirus daan nañuy wax ne lu jëm ci wàllu matériel sanitaire yi manqué na lool lool ci école yi yéen a kaay gi nee na jàngalekat yi ci ab la ñu jëm yéen kaay gi de Les Échos ak L'As mu ñu xamal laan ñu njiitu réew France di Emmanuel Macron dafa amee coronavirus président Macky Sall di ko ñaanal ak wér waa nag ñi nga xam ne ñooy internautes yi ci internet bi yàq nañu Macky Sall musiba ak mbelengaan ndax dañoo wax ne Macky Sall sàmba alaar dëgg la nan la mën a ñaanalee Emmanuel Macron wér te nag sunu député yii nga xamante ni amee nañu coronavirus kenn déggul Macky Sall wax ci ñoom lan yéen kaay gi du L'Observateur ñu xëy jàngee fane Famara Ibrahima Sagna mi jiite comité pilotage dialogue national bi jamono ji dafa mer ba maara taal yi njiitu réew mi di Macky Sall yónni woon na ndaw ci Famara Ibrahima Sagna waaye nag ba mu demee dafa lànk bañ a wax ak ndawu Macky Sall loolee li nga xam ne moo am ba des Ibrahima Famara Sagna cas grave la ci palais de la République yéenekaay gi di enquête xëy ci fawukaayu xale yii nga xam ne dafa am alcool bëri na ay sénégalais yoo xam ne mbir mi naqari na leen loola waa inaa ko yeesal ñoom nag état bu Sénégal la ñu joxor bi baaraamu tuuma journal bi nee na nan la ñu mën a dédduwaane lii nga xam ne baaxul ci xale yi ak nan la ñu def ba autoriser ko ngir mu dugg ci réewum Sénégal loolee lépp ak yaafus